waaw fii daal dañu jékki-jékki rek benn frigo di tàkk après ñu jóg dem di ko fay ñu tuur xapp ci ndox mu wàññeeku après bi mu wàññeekoo noonu ci lañ yi ñu ñëw après benn kii am na chambre bu nekk ci biir après mu doon tàkk bi muy tàkk noonu ci la sappoor yi ñëw dugg ci biir ma wan leen porte bi ñu jaar ma ànd ak ñoom après ñuy fay ba mu fay. non maas la rek ko am naa frigo bu maas la rek. frigo yi dañuy maas parfois. bu sànni daana am mais nag dañoo fekk bu sànni bi dafa jeex ba sarse wuñ ko mais avant loolu man coupé woon naa courant bi dem ci descente discentaire bi coupé courant bi kii kii poste courant bi lakku-lakk bu demee noonu daal moo kenn gaañoo fi kenn gaañoo fi maag sama benn collègue daal kii ñuy wax kii waaw biram moom ne fekk ñu ñoo doon sotti ndox moom xaw moom xaw a fay après ci la gaa yi ñëw na lu fi yàqu nag balaañ ko gën a xam nag il faut bés set ñu xool ndax fi ñu toll nii saas yi ba léegi bàyyiwul.